sayidina muhammadin wal ali wa dawina walil wali laqil lisaani waxlulan min hulum qad wacalhu dakiran wa shakiran abada wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana al xikam faliyahab bilmustafa xayra shiham wa rahmatullahi taala wa barakatuh at bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di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 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci alquranul karim sunu borom tabaaraka wa taala di ñu wax wax joo xam ne nii jullit yëpp war nañ koo setantal te di ko dund kon ñoo ngi ñaan xikma tey bii képp ku ko déglu nga yaatal ko ci sa mbokku jullit ku ko def ku nekk yàlla na la ci sunu borom tabaaraka wa jariñ àdduna ak àllaaxira te musal la àdduna ak àllaaxira ndax bu ñu sañoon kat ñëpp jariñoo ko ndax bépp xol buy dund boo xam ne nii imaan ma nga ca bu ko déggee dana ci jariñu ci lépp lu koy kaweel waaye dana ci jariñu tamit ci watandiku lépp lu koy suufeel bu ñu demee ci sooratul xijiri ay ñaar fukk ak benn sun borom tabaaraka taax taala dafay wax ne lépp lu ngeen aajowoo yéen mbindeef yi rawatina doomu aadama yi lu ngeen soxla àdduna ak àllaaxira sun borom ay magasin la ci yor yoo xam ne nii yéen ko tax a jóg doyewu ko dara waaye nag dara du ca wàcc te waxtoom jotul ah, kon nag loole lañ cay déggee mooy sun borom tabaaraka wa taala mbindeef yépp seen aajo mën naa fajo àdduna ak àllaaxira te fa ñuy jëlee ku fa dem fa ñuy tibbee du feeñ mbirum yàlla moo tollu noonu moo tax mu ne wa in min cheyin illa indana xazainuhu wama wama nunaziluhu illa bi xadri maalum suratul hijr aay ñaar fukk ak benn mbokk yi aay bi képp koo xam ne ni settantal nga ko te di ko dund suñ borom dana la ràng juróom benn jikko yi nga xam ne ni kum ko ràng da nga am naflaayu àdduna ak alaaxira maanaam da nga tabbi àjjana te fekk yaa ngi ci àdduna boo dee nag àjjana ja gën a sarate gën a neexati juróom-benn jikko yi mooy lan mooy woyaf ak doylu ak muñ ak rafet njortu ak yéene ñëpp seeni cër yéene ñëpp itam jàmm te suñu borom dana la musal ci juróom-benn jikko yi nga xam ne mooy safaano juróom-benn yooyu muy rëy ak xir ak yàkkamti ak ñaaw njortu ak iñaan ak soxor yàlla na ca la musal ndax yooyu kat mooy yi sonal doomu aadama yi mooy yi leen di fitnaal àdduna ak alaaxira mbokk yi kon nañ am eh, ak gëm yàlla bu baax a baax ci wutiin wi li ñuy wut wut de ayut wutin wu dagan ayut ndax ndigalul suñu borom la waaye nag bu fekkee ne gëm nañ yàlla ah danañ ko jaar ci aw yoon te te néeg yàlla ndax mag ñi sax daanañ wax ne kat yàlla kenn mënu ko def loo yaar yi ñore leen yan ñu ne lum dogalul ak lu jotagul kon lépp lu yàlla dogalul kenn mënta fexe ba mu am lépp lum dogal te jotagut kenn mënta fexe ba ba mu def ko te jotagut te ñun de yàlla dañu fi indi ñun doomu aadama yi ak jinne yi ngir ñu jaamu ko rek loolu lañu fi indee mu mel ni dañ na ko waaw kon fu ñu jëlee luñ lekk ak luñ dundeek yooyu mun a leen mun nañu sax leen ci li leen fi indi li ci des man maa koy gàddu muy lu ngeen dundee waaye nag sabab dana ci dox sama diggante ak yéen moo tax ñaari aay yooyu yu ama am solo la yu mat a bàyyi xel la te mooy wa maa xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudun ba ca des mooy wa maa min daabatin fil ardi illa ala llahi risquha moo tax sañ ba jaxati ci wayam yu am balaaxa ya am na wenn bayit rek bu mu woy wax dafa boole ñaari aaya yooyu yépp daf caa wax ne xamal ne yàlla danoo yen ak topp moom lanu yan wërsëg yi moo ko yanu kon wërsëg yi moo ko yanu donte sabab nag mën naa dox sunu digg ak moom ndax mooy teggin yi nga xam ne ne moo dox sunu diggante ak moom kon nañ góor nañ góorgóorlu bu baax te farlu bu baax waaye te bàyyee suñ bopp suñ borom tabaaraka wa taala te bañ a jàpp ne benn doomu aadama dañoo xañ dara wala mu yàqal ñu dara bañ di ko iñaane kenn ku nekk lu mu yor lu mu rëy rëy rëy rëy rëy ko ko yéene te xam ne Euh, boo ko doon natt jëlal suñ boroom am aw fepp suuf ngay jël di ko xar nangami junni yoon ba dootoo gis li koy xar lu doon kon yàlla du jeexal waaye kenn ku nekk nag moo seet la yàlla ci yow mu jox la ko kenn mënta yàqal kenn kenn mënta jël ci rub kenn kon kenn ku nekk na féexal boppam bu bëggee tàbbi àjjana te déegut yàlla na suñu borom subhaanahu wa laa defal tawfiq ba ñu bokk ci loolu yi àdduna ak àllaaxira bu ëllëgee ñu andiwaat leneen loo xam ne nii mook aay bii ñooy dëppoo jëlee ko ci waxi mag ñi ak seeni xikma ak seeni woy ak seeni balaawa di jaajëfal mbokki taalib yi bu baax ci jàppale gi ñu jàppale waa daaray Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir waaye di ci beral loxo waa Café Touba Bagdad ci gunge nga xam ne dañoo mas di gung dañ koo mas di gunge waa daaray Hikmatul ci mboolem yëngu yi ñuy yëngutu rawatina daaray alquran ji nga xam ne nii moo nekk fii ci cees seeni teraanga mosu fee jóg lépp lu jëm ci kafe gi ñuy xewloo te kër gi macha allah mi ngi bëgg xumb ñoo ko yor waaye yemuñ ca ñoo ngi ci dolli seeni teraanga ci seen wërsëg ci liggéey bi ñuy liggéey kon nag nañu ñëpp ñaan leen ñaanal leen yàlla gën a barkeel seenub liggéey ndax xam nañ ne lépp lu ñu am danañ ko delloo suñu borom yeneen ko joxoon liggéeyle ko Sëriñ Tuubaa kon ñoo ngi sant sëriñ Daawudu Ture bu baax ak sëriñ Abdul Ahad Lay ak mbooleem ñu ñu seqal liggéey ba te di leen ñaanal di leen xamal ne waa daara Hikmatul Yawmi gis nañ taraanga yi nga xam ne ni yéen ngi leen koy jox ngir ñu boole ko ci liggéey bi ñuy liggéeyalee sëriñ Tuubaa di santaat mbokk yi ci des yëpp it nag ak fu faay mën a ne li ngay def te mu jëm si ci daara ji eh, rëy na lool ci ñun ndax moo fi moo fi indi daara ji